alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahaabatihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen balu àq di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu nangul suñuy jaamu yàlla yépp te jéggal suñuy bakkaar di ko ñaan mu sàmm ñu sàmmal ñu suñuy kilifa di ko ñaan mu yàggal Cheikh Mouhamed Mountakha te yokk ko wér lu dellu siwaat rek ci fàttalente lu aju ci mbir yi nga xam ne suñu boroom subhaanahu wa daf ko tere te bari ay lor lool ci jullit bi waaye bari ay lor lool ci société bi nga xam ne ci la jullit bi di dund ndax suñ boroom dafa bëgg doomu yi dund ci texe dund dund gu teey mu digle yi nga xam ne buñ sàmmoonteek moom danañ am dund gu teey ci àdduna am ko ci àllaaxira lu mel ne yërëmante lu mel ne dimbalante waaye mu tere yi nga xam ne it day naxal dunduk nit ñi te mu bokk ca ak zulm te mooy tooñ tooñ day loo xam ne dafay kàllankoor aw nit yu ànd di dund waaye dafa bari ay lor yoo xam ne mën na koo indil jullit bi ci ak dundam ci àdduna man ko koo indil àllaaxira moo tax ñu war di ko fàttali di fàttali lor yi nga xam ne moo ci nekk ngir nit ñi man koo moytu te nag buñ ko waxee lépp loo xam ne jalgati la ci àqi jàmbur loola day dugg ci ak tooñ lépp loo xam ne dañ koo digle it am fuñ la ci yamloo boo ko weesoo loole ak tooñ lay doon kon tooñ bari na lool lu ko nit di def sax te du ko yëg ndax même lu baax man nga koy def waaye boo ca weesoo fañ la ca yamloo loola day soppaliku ak tooñ am na xadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa ci njàpp la koy wax sax ne képp koo xam ne dolli na walla mu wàññi kooka faqat asaa wa zalama kooka tooñ na tooñ nag dafa am ay xeet nit dana tooñ boroomam nit ki dana tooñ moroomu mbindeefam waaye nit ki dana tooñ boppam tooñ boroomam la ci gën a fés mooy weddi suñu boroom subhaanahu wa taala loolu tooñ gu rëy la waaye wutal suñu boroom ndend wutal wutal ko loo koy bokkaaleek moom loolu it tooñ gu réy la moo taxoon suñu borom subhanahu wa di wax ne inna shirka la zulmun azim waaye lépp lu suñu boroom tere nga xëtt tere ya loola ak tooñ la moo xam fu mu a doon moo xam ci sa biir kër la sa digg ak sa njaboot sa dikk ak say dëkkandoo sa dikk ñi nga nekkal lépp loo xam ne lu suñ boroom tere la moo xam ci sa bopp la moo xam ci keneen la boo ko bëttee tooñ nga sa boroom kon tooñ sa boroom la ci jiitu mooy weddi ko naafiq ak di bokkaale waaye it lim lay tere nga bañ koo teet bañ koo moytu bokk na ci tooñ mbindeef yi nag nga tooñ nit moo xam ne jëmm la nga tooñ ko moo xam ci alalam nga ko tooñ wala nga tooñ ko ci ab deram wala nga tooñ ko ci yaramam jël alali nit ci lu dul dëgg ci nax ko wala nga ëpp ko doole wala pexe moo mën a def ba jël ko ca du teeyug bakkanam loolu ak tooñ la waaye wax ko loo xam ne it da nga koo tuumaal wala da nga xas wala da nga jëw wala da ngay yàq ab deram loolu lépp it tooñ la waaye dal ci kawam tuur deretam walla nga gaañ ko loolu it tooñ la yooyu yëpp dafa dugg ci tooñ mën ngaa tooñ mbooloo it def loo xam ne mbooloo ci loro loolu tooñ la lépp lu ñëpp bokk yemoo ca fa nga war a yem loolu ak tooñ la waaye defoo ko kenn rek waaye mbooloo nga ko def lépp loo xam ne ak wuruj la wala foroot la wala lu ni demee nga ngay jaay walla ngay liggéey def ko ca biir liggéey ba loola tooñ nga waaye mbooloo nga tooñ société bi yëpp nga tooñ ndax ña cay loroo mën naa doon mbooloo waaye boo yoree war a atte a jaar ci dëgg wala jaar ci ak maandute boo jengee loola tooñ la waaye du tooñ kenn nit waaye tooñ mbooloo la tooñ société bi yépp la kon nit ki dana tooñ boroomam dana tooñ moroomu mbindeefam waaye ku ne tooñ sa moroom mbindeef it sa boroom la ndax suñu boroom subhaanahu wa la moo tere nit di tooñ moroomum mbindeefam kon saa bu ko tooñee tooñaale na boroomam waaye nit kii it dana tooñ boppam saa boo defee luñ lay tere moo xam ci sa bopp nga ko def tooñ nga sa bopp waaye tooñaale nga sa boroom tooñaale nga mbindéef yi kon tooñ lu yaatu la loo xam ne kenn ku nekk war na ko bàyyi xel ci boppam lépp loo def lu lay lor ci sa bopp xamal ne sa bopp moomoo ko suñ boroom dalaa jox bind sàkk la wutal la loo war a def ci àdduna kon moomoo sa bopp ba lu la neex def ci kon lépp loo xam ne lu lay lor la boo ko defee da nga tooñ sa bopp waaye danga tooñ sa boroom subhanahu wa taala tooñ nag doon lu araam lool loo xam ne suñu boroom subhanahu wa da koo tere tëkkoo ci tëkk yu metti di wax kiy tooñ mbugal mu metti mi koy nekk ëllëg innama alsabilu ala alladina yazlimuuna annaasa wa yabguuna fi l ardi bi geyri lxaqi ulaika lahum azabun alim ñi tooñ nit ñi di bew ci kaw suuf di jalgati aq nit ñi ñooñu ëllëg mbugal mu metti mu tiis moo leen di nekk walla yaasu billah te suñu boroom mu ngi tëkku nga gis ab tooñkat dara jotu ko mu nekk ci jàmmam nga defee ne suñu borom da koo fàtte wala da koo sàggane fekk te nee na wala tax wala taxsabanna allaha gaafilan amma yaamalu zaalimuun innama yuwaxiruhum li yowmin tashxasu fihi absaar ëllëg la leen di nége bis ca loola moo yées mbugalum àllaaxira waliyaasu billah yàlla na ci yàlla musal bi sallallahu alayhi wa moom it fedd li lool tere ku tooñ mi ngi wax di nettali waxi suñu boroom ci xadisul qudsi di wax ne yaa ibaadi inni xaramtu zulma ala nafsi wa jacaltuhu baynakum muxarraman fala tazaalamu man yàlla dama araamal tooñ ci sama bopp araamal ko seen diggante kon bu kenn tooñ moroomam yonent bi sallallahu di ñu bàyyiloo xel ne nit ki wërta nekk al toppe lu nit ña nekk mu nekk ca donte tooñ la mu ànd ca tooñ ga buñ defee lu baax mu ànd ca day mel ne kuy raaxaloo rek lu nit ña nekk mu nekk ca bu dee lu baax la mu ànd ca ak ñoom bu def safaar la mu ànd ca ak ñoom mu ne loolu bu leen ko def yéen jullit ñi da di am fulaak fayda nekk ci dëgg waaye ku nekk ci dara nga ànd ak moom yonent bi nee bu leen ko bu leen def loolu nangeen bu fekkee ne nit ñi ñoom ñu ngi def lu baax ànd leen ci ak ñoom waaye bu ñu defee ay ñaawteef yéen bu leen tooñ wax ne laa takunu immaa taquluuna in axsana annaasu axsanna wa in zalamu zalamna walakin wattinu anfusakum an tuxsinu wa in asaa'u fala tazlimu kon nit ki dafa war a bàyyi xel ca la muy nekk ànd kook nit ña ndax lu rafet la mu ànd ci ak ñoom wala ab safaan la mu moytu ko bañ a tooñ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد sunu laa ilaaha illallaah sunu محمد رسول الله حي على السلام أكبر kon tooñ du mat a moytu ndax jeexit yi mu am ak lor yi nga xam ne dana ko indil nit ki nga xam ne mooy tooñ ca lor yooyee am ci lori àdduna ak lori àllaaxira bokk na ci lori àdduna yi mooy ki tooñ kamu tooñ suñu borom subhanahu wa taala dafa wax ne bu ko ñaanee yàlla ñaan yàlla googee kenn du ko delloo mooy bu ko ñaanee yàlla ñaan yàlla googee dal ko te ku tooñ nit nag xamoo lam lay ñaanal lu mu doon bari na koo xam ne mën naa jékki-jékki am yu koy dikkal te xamul lu mu doon mën naa am fekk dafa ñaanoon dafa tooñoon nit kooku ñaan ko yàlla moo xam ci jëmmam la walla moo xam ci alalam la waaye loolu loolu mën naa am la ko waral mooy ku mu tooñ kooku ñaan ko yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne ñett a ngi nii seenu ñaan kenn du ko delloo mooy ki woor ba ba muy dog ak imaam joo xam ne dafa maandu ak ku ñu tooñ nee na ki ñu tooñ moom yàlla da yëkkati ak ñaanam ba ca kaw asamaan mu ubbil ko bunti asamaan suñ boroom ci boppam day waat ne ko dinaa la dimbale dinaa la dimbale lum yàgg-yàgg dinaa la fayul loolu nag moo tax nit ki war a moytu tooñ ndax lam koy jural ci àdduna xamul lu mu doon àllaaxira it wax nañ ko léegi ci mbugal mi nga xam ne suñu borom tëkkoo na ko koo xam ne day tooñ moroomi doomu aadamaam ndax tooñ gi ci gën a yées mooy tooñ joo xam ne dangay jalgati àqi sa mbokkum sa sa moroomum doomu aadama moroomum mbindeef ne yow ndax suñ boroom mën laa jéggal yowmal qiyaam waaye boo jëlee àq jàmbur yowmal qiyaam da koy fay moo tax li ñuy wax iflaas mooy fayit yonent bi sallallahu alayhi wasallam neewoon na fañ ko teg nekku fa laajoon nañ ko lan mooy iflaas te mooy fayit mooy perte dëgg-dëgg mu waxoon leen ndax xam ngeen mooy kan muflis mooy kan ñu ne ko ah muflis de liñ ci xamoon mooy ko xam ne dem na doon yëngatu di liggéey dem ba yoratul benn xaalis yoratul it marsandiis léppam jeex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kii iflaas ci samaw xeet mooy ki nga xam ne yowmal qiyaam daa indi julli yu bari indi woor indi azaka waaye nag fekkoon na mu xas ki fekkoon na mu saaga kële tooñ kële lekk alali kële tuur dereti kële dóor ki kookee nag bu ñëw yowmal qiyaam dañuy jël ci ay yiwam jox ko ñam tooñoon su saa ay yiwam jeexee ñu jël ca ñaawteef yi ñamu tooñoon jóor ko ko yóbbu ko sawara wala yaasu billah kon àqi doomu lu mat moytu la ma moto jalgati waaye it dana waral rëccu suñu borom mi ngi wax ne wa ya yauddu yauddu yaudu zaalimu ala yadayhi yaqulu yaa laytani ittaxastu maa rasuli sabila kon ëllëg ki doon tooñ dana wiccax mat baaraama wiccax rëccu lool ci tooñ ak lëndam la yomal xiyaam moo tax sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ku daan bàyyiloo xel jullit yi ñu moytu tooñ tey jéggale daana wax ne nanga nga ragal tooñ te bul ragal kiy tooñ ndax kiy tooñ mënulaa lor lu may ci coobare suñu boroom ak kàttanam waaye tooñ moom daf lay lor faw mu lor la ca du la jariñ mukk ci lépp loo xam ne yaa ngi ko fàggoo ci ak tooñ dinañ ko jële ci yow ci ak tooñ nanga nga tooñe woon kon loolu moo tax tooñ mata mata moytu mooy la saabu la nit tooñee nee na nanga ko jéggal soo ko jéggalee suñu boroom dina la fayee loo xam ne buñ jaayoon kala tooñ lañ lay faye moo koy ëpp fuuf moo tax suñu boroom wax ne fa man afa wa aslaha fa ajru alallah nee nag sëñ tubaa nee na bu fekkee ne dangaa fay dangaa fay fayyu te jéggalewoo nee na sag pay mooy rek ñu ne kii ku jàmbaare la bu ko defee seytaane bég mbég mu mbég mu rëy wala yaasu billah tubaa wax nañu bu leen jël seeni yiw di ko jox nit ñu baax ñi bu leen gàddul ñaaw bu leen gàddu ñaawteefi ñi nga xam ne dañuy def ay ñaawteef ndax képp koo xam ne fekk nga nit ku baax nit ku yiw nga ayibal ko lam amoon la nga amoon ci yiw da koy jël boole ci aw yiwam ci képp ku tooñ ñi nga xam ne dañuy def ay ñaawteef bu boobaa ëllëg danga ko gàddul ay ñaawteefam moo xam ne kon kiy tooñ du raw waaye kuy fay wit du mucc kon na yàlla suñu boroom boole ci ñi nga xam ne dañuy daw ak tooñ te ku leen tooñ ñu jéggal la li nga xam ne kon moo jëm ci xutba bi nga xam ne moom la imaam war a jàng tey ginnaaw bi mu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seede ne amul benn buur bu dul yàlla seede ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muhammad muhammad mooy ab yonentaam dafa wax ne yéen nit ñi maa ngi leen dénk ngeen ragal yàlla ndax ki texe mooy ki ragal yàlla ma leen di moytuloo mooy yàlla ndax ki perte mooy koo xam ne mooy na kilifaam mooy na sangam nangeen takkoo topp suñu boroom ndax topp suñu boroom ci la ngërëmam nekk ma leen di tere topp bànneex ndax kuy topp bànneex kooka mooy ki réer maa ngi leen di diggal ngeen gaawtu tuubal seen boroom balaa dee ñëw na ngeen xam yéen jaamu yàlla yi ne képp koo xam ne tudd na suñ boroom suñ boroom tudd ko ku ko fàttaliku mu fàttaliku mu fàttaliku la ci lépp loo xam ne jiital ngeen ko ci lu baax bu ngeen demee fa suñu boroom da ngeen ko fa fekk wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah na ngeen mattandiku jamono jii nag ndax jamono la joo xam ne yiw dafa néew te musiba yeeg balaa yu bari kenn ku nekk di yittewoo mbirum àddunaam ñi nga xam ne dañoo sàggan ñoom sàggane mbirum dee diine mujj tumuranke lool na mu tàmbalee woon te kat lu mat a bàyyi xel la ëllëg bis bo ba nga xamee ne gàcc suñu borom subhanahu wa taala ci lay feeñal yi gàcc yi nga xam ne moo nëbbu woon kenn ku nekk say cër di la seede te bu boobaa suñu borom rek mooy kii àtte mooy bis ba nga xam ne kenn du mënal kenn dara lépp nekk ci loxol suñu boroom yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma izin lillah yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne ñeent bokk na ci texee texeede mooy bët bu wow xol bu wow ak xër ak yaakaar yu ak mébét yu bari wax ne suñu boroom nag ku baax la day tàllal loxoom ci guddi gi ngir képp koo xam ne defoon na ñaawteef ci bëccëg mu mën koo tuub waaye day tàllal loxoom ci bëccëg ngir képp koo xam ne defoon na ñaawteef ci guddi gi mën a tuub ba ba bi so mu wax ci xutbaam ñaareel bi ne nag ginnaaw bi mu jullee ci yonent bi mu sant yàlla julli ci yonent bi mu wax ne yéen nit ñi ana càggante gi nga xam ne yéen a ngi ci lan moo ko waral yéen a ngi déglu waaraate yi ajjuma ju jot ba noppi di ko wan ginnaaw ndax da ngeen a jàpp ne àdduna bii da ngeen fii sax dàkk wala da ngeen jàpp ne yéen du ngeen faatu du ngeen dekki te ku ne war naa xalaat laaj ana yonente ya ana aw waliyu ya ana xeet yi ñu jiitu woon ana suñu maam ya ñoom ñépp ñu ngi mujj nekk ci suuf ñoom ñépp ñi ngi seey ci suuf si te suñu boroom wax na ne kullu nafsin zaiqatul mawti wa nabluukum bi charri wal xayri fitnatan wa ilayna turjaun yonent bi salallahu wax na ne na ngeen bareel di wax laa ilaha mooy amul benn buur budul yàlla bala bala ngeen a dem ba dootu leen ko mën a waxati ndax seen digg lay dox seen digganteeg wax ko mooy dee kon na ngeen koy sax ñi nga xam ne dañoo toll ci sukuraat yonent bi sallallahu alayhi wax na ne ki gën ci yéen mooy koo xam ne dundam gudd na waaye ay jëfam rafet waaye ki yées ci yéen mooy ki nga xam ne ak dundam dafa gudd waaye ay jëfam ñaaw yàlla nañu suñu borom subhanahu wa taala boole jéggal yàlla na suñu borom boole sàmm yàlla na suñu borom def jàmm ci réew mi yàlla na suñu borom yàggal Cheikh Mouhamadou mu te yokk ko wér wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. الحمد لله الذي تفرد في ملكه وبقاه وتقدس وتنزه في أزليته فلا عين تراه حكم بحكمه في خلقه ولا معقب لحكمه ولا راد لما قضاه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 إلى يوم عرضه ولقاه أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله فقد فاز من اتقاه وأحذركم عن المعاصي فقد خاب من عصى مولاه ولازموا طاعته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 فلا حول ولا قوة إلا بالله وصار الدين غريبا كما كان مبتدا وأسفا وقلة حيلته في يوم تظهر فيه الفضائح وتشهد علينا فيه الجوارح والحاكم هو الله yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idin lillah wa fil hadithi arba'un min ash-shaqawati jumuudul ayni wa qaswatul qalbi wal hirsu wa tuulul amal wa fiihi aydan inna allaha yabsutu yadahu billeyli liyatuuba musii'u nnahaar wa yabsutu yadahu binnahaari liyatuuba musii'u lleyli xatta tatlu'a shamsu min maghribiha الحمد لله الذي احتجب في حجاب جلاله فلا تراه العيون وتفرد في صفات كماله فلا تخالطه الظنون أحمده سبحانه وتعالى بمحامده التي يذكره بها الحامدون وأشكره بشكره الذي تقر به العيون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العالم بما كان قبل ان يكون واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله يا له من نبي تشرفت به الانبياء والمرسلون اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم يبعثون أما بعد فيا أيها الناس ما هذه الغفلة التي أنتم عليها عاكفون تسمعون المواهب كل جمعة wa antum anha mu'ridun atadhunnuna annakum fi dunya mukhalladun am tatawahhamuna annakum la tamutuna wala tub'athun أين الأولياء أين الأنبياء أين أين المرسلون أين الأمم الماضية أين آباؤكم الأقدمون قد صاروا والله في التراب وهم لنا ذائبون متقطعون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وفي الحديث أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم وفيه خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا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 الله allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata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

asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.